ñu tàmbale ko laaj bi nga xam ne sëñ bi Mbàkke moo ko laaj nee na ndax xutba mënees na ko def ci wolof walla ndax ci arab rek lañ ko mën a def waaw sëñ bi Mbàkke xutba mazahib yi dañ cee wutee boo demee ci bu Malik ak lu mel ni lenn ci borom xam-xam yi mazhabu Hanbal dañoo gis ne xutba moo ko faatiha yem imaam dégg na arab ak déggul arab ñami waxal dégg nañ arab ak dégguñu arab ci arab lañ koy def madhabu shafii ak lenn ci madhabu xanbal dañ ne su fekkee dégg nañu arab nañ ko def ci arab suñ déggul arab nag soog a am ngàntal mën ko def ci beneen làkk abu xanifa moo ci gën a woyofal moom ak lenn ci borom xam-xam yi madhabu shafii moom dañ ne ba ci arab luñ soppala la rek waaye waneen làkk boo ko defoon mu wér ba ci euh, lajna yi nga xam ne ñooy tënk borom xam-xam yi am nañ sax wax yu wute boo demee ci rabitatul alami islam yi daf ne nekkul charte wala nekkul charte bokkul ci lii tax xutba wér mooy ñu def ko ci arab kese ñàkk def xutba ci arab teewul xutba gi wér waaye ne li gën a rafet mooy comme wuute am na ci ñu jiital arab bi ci xutba gu njëkk gi xutba gu ñaareel gi làkk ñu ko def baax na boo demee ci borom xam-xam yi tënk laj na adda ima lil ifta ñoom dañ ne alei salatu salaam naam ci arab la daan xutba waaye alei salatu salaam làkkam arab la woon kon moom arab la déggoon ci arab la daan xutba waaye daa fekk ne mooy làkkam kon moom ci arab rek la mënoon xutba waaye amul fenn fu ñu gis ne charte la ci xutba mooy ñu di ko def ci arab rek nee na bokk na ci liy tegtale ne mënees naa xutba ci li dul arab mooy aaya bi ñoom Euh, laaj na addaay mooy ifta nee nañu lii tegtale ne dagan nañu xutba ci lu dul arab mooy aay bi wax ne wa ma arsalna min rasuli illa bi lisaani qawmihi li yubayyina lahum nee na ñooñ daal loolu day tegtal na kon kenn ku ne fa nga ne nanga nga mën a def ba ña ngay waxal dégg la rek euh, noona baax na waaye bokk na ci saxaaba yi bi ñu bàyyee bàyyeekoo Saoudia dugg ci gox yi di ko ubbi gis nañ ne bu newee ci bilaadul ajam yi lu mel ni Faris lu mel ni Ruum ak yu demee noonu suñ ñëwee dañ daan wut ku leen interpréter seeni wax ngir ñi ñuy wax ma ne dégg loolu day tegtal na ñoom suñ mënoon a wax lu gaa yi dégg ñoom ñooy wax direct ak gaa yi waaye biñ ko mënut dañoo wut waasito nga xam ne mooy tekki seeni wax di ko tekki ña ñuy wax la ko loolu day tegtal ne kenn ku ne farata ja daal piir mooy ña ngay waxal nga fexe bañ dégg la kon ba ci arab kase bokkul ci charte yu yàq ba bal sax comme mir rasulun illa bi lisaani qawmihi kenn ku ne wax ak saw nit ca làkk wañ dégg ndax xutba weesuur wax ak nit ñi ci leen soxlal kon ba ci arab baax na xot ba ci lu dul arab baax na boo bëggee génn ci wute gi nag xutba gu njëkk gi def ko ci arab xutba gu ñaareel gi waneen làkk woo ko def baax na moo xam français moo xam arabe moo xam wolof moo xam làkk woo ko defee rek baax na kon sëñ Mbàkke loolu mooy tontu li euh, beneen laaj beneen laaj bi nee na ndax soxna si sax daf ne dafa am daal ku ñu doon weranteel koo xam daal ñoom kër gi ne ñoom ñoom daal ni ko waxee mooy ñoom naar yi bu ñu amee doom ñooy tuddal seen bopp muy laaj ndax jigéen mën naa tudd doom wala déet waaw mbokk mi tudd doom doy fuqaaw yi dañoo gis ne sunna la boo demee ci risalat na abi zeyd al xayrawaani nee na moom sunna mustahab la foofa sax boo demee ci sarxa bu ma ngay coow nee na menn mbir mënta am ñaari at mënta nekk sunna nekk mustahab ndax xaaji atay sharian yi dañ koo xaaj ci juróomi xaaj aqsaamu xukmi sharian xamsatu turam loolu la usul yu ñuy wax ñi jàngale usul mooy cosaani atay sharian yi dañ ne aqsaamu xukmi sharian خمسة ترام فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة يما يخاجع تشاعي مينا كو بين بيتنا لمي تيك مني فمن دوب ثم إباحة فمن ثم إباحة فما أمور جزيم فرض ودون الجزم من دوب نسي دونه مكروه ومع حتم حرام مأذون وجهه مباح ذات مام ليلة ابن عاشر xaajaate charia benn ñu ne lii farata la wala ñu ne lii luñ sopp la wala ñu ne lii luñ sib la wala ñu ne lii lu xaraam la wala ñu ne lii lu dagan la rek def gi ñàkk gi def ñooyam moom ngént mii nag bi euh, Risalat Ibn Abi Zayd bi waxee ne sunna la boo demee ci lu mel ni Siraaju Salik euh, Mouhamad Bichar dafa wax ne moom dafa gis ne mustahab la mooy dañ koo sopp rek yëgul sax ci sunna mom nak goor man nako def jigen man nako def ndax su tout tank bi gane jamono ka ko dalal rek man na nopp nodd ci nopp jor bi xam ci nopp chamay bi jox ko aw turam nak bo gisee baat bi sax haqiqa ni ko foqahaa yi di moy al haqiqa ngénte baat bi pire ci luxa moy tekki dag. dag ñu dag ñu ci jublu rend gi ñi rendi xar ci juroom ñaarel fan ñu ne ñu ci djublu jublu gi ñi dag karawam moy wat gañ koy wat nga xamné yi ño teunk ño teunk ngenté ben nga tuddu rendi wat muy turiwa bo démé ci ñi jàngale fiq teunk bobu lañ koy defal turiwa moy tuddu rendi wat wala euh, turiwa wala wala wala wala wala wala euh, kon loolu la ko foqaaw yi tënkal turi wa mooy tudd di wat wala ruti wa nga rendi ba noppi tudd soog a wat boo ci def baax na kon loolu ku ne mën na ko defe boobu ku mën a lexaam mën a nodd rek mën na ko def wax nañ ne bu nit gënee jamono juróom ñaareelu fan ba lañ sopp ñu defal ko ko ñu defal ko rendi gii waaye nag nodd ci nopp ndeyjoor bi li xam ci nopp càmmoñ bi ak fexé ba lu saf suukar jitu ci gémmiñ lolu bu gënee jamono rek dañ ko wara defal su yalla dogalé bis bi ci euh ay waajur mën mëna rendi baxna bu dé goor ñaari xar lañ sopp ñu rendi ko lolu nak du suñu aada su dé jigen menam xar lañ sopp ñu rendi ko su amut bis bi dellu siwaatee bu amé mu rendi ko fekk nak jox nañ ko tur ba nopi su amut ñetteelu ñettelu semaine ba bis bi amul mu dellu si amut bu dellu si waatee bu amee rendil ko su amut nag wax nañ ne wàcc na ko même su ko ci diggante bi sax soo soppuñu mu rendil ko su ko defee xale bi bu demee ba màgg moom su amee daal di rendi boppam comme lii la ci borom xam-xam yi wax bu fekkee nit dafa gane jamono it ci njëkk fajar comme bu nit gënoon jamono njëkk fajar fajar gi njëkk fekkee ci àdduna rek moom la ñuy lim su ganewoon jamono ci jamono ji fajar di xar fajar googu gi dañ koy lim waaye su fekkee bàyyi na ba fajar gi xaar ba mu leer mu soo gën a jamono fajar gi gi ci kanamam ku ko lay tàmbali lim tey dimanche la xale bi bi ñuy julle fajar bi ñuy julle fajar nga xam ne ci la fajar xar ci la gën a jamono dañuy jël dimanche ñu compter nga xam ne euh, samedi mooy nekk ngénte la su fekkee gannaaw bi ñu jullee fajar ba mu tàmbalee leer ay sept yooyu mu gën jamono kon dañuy tàmbalee lim altine nga xam ne dimanche mooy nekk ngénte la su doon ci ay minuit une heure la gane jamono ci guddi gi ñuy weesu muy samedi kon dañuy lim dimanche nga xam samedi mooy nekk ñeenti loolu ñu bari léeg-léeg bari ci ay laaj waaye loolu noonu la demee benn laaj bi nee kan mo njëkk dajale alquran euh, mbokk mi alquran gannaaw bi ko yàlla dajalee xam-xamam ba gannaaw ba mu wàcce ko ci ci wàcc wàccaat yooyu ba mu yegg ci baytal maamuur gannaaw ba jibril wàcce ko ci aleyhi salaatu salaam mu dajaloo ci dënnam ba aleyhi salaatu salaam ci jamonoom bindlu woon na ko ci kuttaabum yooyu ñu bind ko ci ay xànc waaye boobu nag dajaloo wutoon ci benn barab comme ñun nii ñu ko amee boobu nekkoon na ci dënn gor yi nekk ci ay xànc nekk ci ay euh, kayit ak yu demee noonu waaye fenn fu ne rek daam lu fa nekkoon mais du wutoon lu dajaloo comme nii gannaaw bi alayhi salaatu wasalaam génnee jamono nak dafa am xare bu métti ñu koy wax xar bu nga xam bi gannaaw bi alayhi salaatu wasalaam génne génnee jamono Musaylamatul Kazzab doon wooteeg nubuwa am ñenn ñu ko topp ak ay giir yu baree bari yoo xam ne génn nañ ci lislaam murtat nekk ci la neen ñenn ñi nekk ci lislaam bañ a joxe azaka Abubakar ne lii mënta wéy lislaam da ngay jàpp lépp wala nga bàyyi lépp daal di nag takk xare bu mag xare boo xam ne lu mat daanaka fukki junne doomu aadama ëpp nañ ko sax la ci ànd àndal ci saxaaba yi dal fekk sax moom laata xare bu mag bii di am dafa am ñu mu yebaloon ngir ñu dem waxtaan ak ñoom ñooñu it xaw a bañ demee jéem a attaqué ñoom Musaylama ñoom Musaylama gañe leen gannaaw bi nag ci la Aboubacar mer daal di takk xare bu mag ñu dal ci kaw yéeféer yooyee ak ñu mort ak ñoom Musaylamatul Kazzab ba daanaka ñu ray ca lu mat quatorze mille personnes waaw quatorze mille personne faatu ci ci wàllu saxaaba yi ba ci lañ rey sax mu a kazzab moom nga xam ne même si jamono alayhi salaatu salaam doon wax ne yonent la ba alayhi salaatu salaam tuddee ko al kazzab mooy koo xam ne lu mu wax dëgg nga xam ne musaylima bu jàkkaarloo nag am muus ne lii muus la muus mi day daal di soppeeku bu jàkkaarloo nag am ndox daal dina ndox mi moo saf moo moo moo moo neex ndox mu neex a ngi nii ndox mi day daal di daal di saf xorom xam ne lu mu wax rek mu daal di soppeeku lu wax rek fen lay doon ali salaatu wa salaam moo al kazzab nga xam ne koo lu mu waxat rek du nekk dëgg biñ bi sahaba yi dalay ci kawam ñu bare bare faatu ci nak biñ ñewé ci la sayyidna umar ne Abu Bakar Lima gis ñu faatu ci limi sahaba yi ak ñi al alxuraan bu xare bi amat amat alxuraan dina manqué ndax bu fekkee ndax ali salaatu wa ba muy dem bobo ñim bay ñu mokkal alxuraan bari wuñ ndax bobo sahaba yi ci lañu dañ ko doon booleeg liggéey ak yor kër ak xare yu bari yeeg yooyu kon ñu amuñoon jotug mokkal alxuraan gannaaw ba nag ci la Aboubacar xalaat ci li ko Omar wax ñu daal di samp ab commission boo xam ne Zayd ibnu Saabit moo ko jiitoon ñu dajal alxuraan moo tax sax nga dégg an liin daan wax ne yarhamullahu aba bakrin awwalu man huwa awwalu man jamaa alqurana bayna lawhayni an liin daan wax ne yàlla na yàlla yërëm Aboubacar mooy ki njëkk a dajale alxuraan ci ci ci ci ay barab yu kii man bay na la waxee ci diggante ay àlliwa mooy bind ko mu dajaloo kon Abubakar li taxoon mu bind ko mooy musal téere bi ci manqué ci manqué ndax boobu bu ñi ko mokkal bu bu faatu gi bari woon dana am ñoo xam ne lii lañ mokkal ñee mokkale ñee mokkale bu ñeneen ñi faatoo yóbbuwaale lañ mokkal nag kenn dootu ko am kon téere bi day manqué te yàlla musal na téere bi ci loolu inna alayna jamaahu wa qur'anahu gannaaw ba nag ba Seydina Ousmane nekkee ci xilaafa gi xam nga arab yi comme seeni làmmañ day wute njàngin nii kenn ku ne di ko jàngee ci saw làkk nga xam ne boo koy jàngee yow da ngay wéeru ci saw làkk bay jàngee xeet googa Seydina Ousmane nag ci la wootewaat ñu indil ko kaamil ya fa nekkoon mu sampaat ab commission ne nañ saytuwaat alxuraan dajalewaat ko seggaat ko ba nga xam ne dañuy rëdd rëdd woo xam ne dañ ne nii lañ koy jàngee giir gu mën a doon yaay fekk si waaye alxuraan kenn ko xëccaat ci saw làkk kon Seydina Abubakar bañ alxuraan manqué moo taxoon mu dajale ko waaye Seydina Ousmane bañ ñu yàq njàngin wi ak bañ maanaam euh, langage arab dugg ci nga xam ne giir gu na nga doon waxee rek noonu ngay noonu nga gisee alxuraan di ko jàngee noonu kon kii musal alxuraan ci yàq moo tax mu dajale ko Aboubacar musal alxuraan ci manqué moo taxoon mu dajale ko ci la nag Seydina Ousmane sampaat commission boo xam ne Zayd ibn Thabit mi jiitu woon commission bu njëkk ba nga xam ne ndeysaan ñaar fukki at rek ak benn ba ko abou Abubakar di sant di sant mu dajale xaan boobu ñaar fukki at rek ak benn la yoroon fi ne nii ko am ñaar fukki at ak benn da ngay jàpp ne waragoo mën a jiite dara waaye xoolal alxuraan ni màggee xoolal dajale ga ci jamono jooja gannaaw bi Seyd bokkee ci ñu doon bindal aleyhi salaatu salaam bi ko Abubakar di samp di sant mu samp commission ba ñaar fukki at ak benn rek la yor Zayd jiite ko Zayd ibn Thabit ànd lu mel ne Abdullah ibn Zubair ànd ceeg lu mel ni Saïd ibn al As Abdourahman ibn al Harith ibn Hisham ak ñu bëree bëri ca ca ca yëf ya laaj bi sopp nee na ndax lu mel ni xar wala bëy suñ tuuree ndox wala ñu tuur dugub ci sa yére wala yu demee noonu alayhi salaam ndax sobe lay doon wala déet waaw mbokk mi lépp loo xam ne dagan naa lekk rek lay génnee ca moom nekkul sobe ba mu des lu dagan a lekk tey dundee sobe xar su tuuroon ndox sa yére bi bu la neexee man nga sol rek dem julli yàqu dara wala mu dem gannaaw kër sa yére bi walla bëy wala nag wala gileem yooyu yi nga xam ne dagan naa lekk yépp buñ seen lañuy ñuy génne bu laalee sa yére bi wala bara ba nga jullee nekkul sobe ba mu des nag li nga xam ne daa laab daa dagan tey dundee sobe lu mel ni ganaar ganaar dagan na waaye day dundee sobe looloo tax moom ay dem àll mag yu demee noonu moom sobe la bis topp neen lan mooy wod yu lan mooy maj yu ak lan mooy man yu lan moo leen teqale waaw mbokk mi yi génne ci doomu aadama tey ndox dañoo wax ne ñeenti xaaj lañu mooy tuur ndox ni ñu xam ak wod ak maj yu ak man yu tuur ndox mi ñu xam ku ko def da ngay raxas sa bopp saakar rek sa bant sowukaay ngay raxas sa bop ba lolou mooy atte bi jeex labna su dee wad yu li gëna bari ci limi muy génn gannaaw tour ndox la ñaar bo tour ndox ba nopi wad yu moy mujjë a génn te bu dang ko xaw tuti xamna ndox lay doon mu xawa euh, tal momit la war ca tour ndox rek mo ci war moy raxas bop bant saakar moy moy bant bi am na leneen lu ñu tuddee almasiyu masiyu ndox mu sew lay doon mooy mu xaw a tax li koy faral di génn nag mooy bànneex bu ndaw mel ni di foog jigéen wala di xalaat jigéen walla di laal jigéen wala yu demee noonu daal nga xam day aju ci bànneex bu ndaw moo koy génne moom li ci war mooy raxas bantu bopp sàkkar bi yëpp boole ceeg yéene yëkkati sobe sa waaye boo ko raxasoon nag fàtte yéene ja wala sax danga yéenewut téewut baax na waaye la gën te ñu santaane ko mooy nga raxas bantu sàkk bi yëpp boole ko génnee yëkkati sobe sa beneen bi topp mooy man yu man yu bànneex bu mag moo koy faral di génne mooy sëy moo koy gën di génn booba sax mooy waral sangu ndax tey ji bu doon ne da ngaa génne man yu fekk da ngaa tawat wala da laal ndox wala dañ laa wax xibaar bu bett wala yu demee noonu moom sangu du ca war kon man yu bi génn te bànneex génne ko euh, di foog jigéen ba mu génn walla ngay sëy ba mu génn booba la sangu di waral man yu nag daanaka buñ la ko doon nataal dañ naan nañ ndax rek ñoo niroo aw melokaan moom nag su tooyee day yor xeetu mooñ maanaam làcci xët googu la yor su woowee euh, xeetu nen lay yor kon ñeent yooyu mooy ndox yi génnee ci nit benn bi sopp nee na ndax sa yére su taqee sobe te xamoo fan la taq naka lay def waaw loolu laxdari waxoon na ko ida taayanat najasatu xusila mahalluha wa in tabasat xusila sawbu kulluhu sobe su taqee siire nga xam ne fii la ne da nga koy raxas rek ci ndox mu laab te mën a laabal ndox moo xam ne xet ga coppeekuut cof ka nga soppeekuut couleur ba soppeekuut ni ndox baaxoo mel rek la la mel soog ci raxasee bu setee baax na donte ne ba nga ko raxasee wowut sax waaye bu sobee sa a dañ rek bu la neexee nga sol dem doxi sa yitte wala nga dem julli ci su fekkee da nga fan la nekk nag yow xam nga ne moom yére bi moom sobeel taq na ko waaye nag teg nga yére bi dem ñëw xamutoo fan la toll da ngay raxas yére bi yëpp moom ngay fóot su doon ne sobee dafa taq maanaam yow xam nga ne sobee moom taq na sa yére waaye xamoo ban la ci mbub meeg tubéy ji xamoo ban la ci waaye xam nga ne benn moom moo ci am solo la ñuy def mooy Cheikh Ali nee na da ngay jël benn rek nga nga ne bii nag moom laa dogu ci ne moo am sobe daal dem fóot ko atte ba waral doon na ci beneen bi nekk sax yow boo xasee def loolu rek na wàcc na la atte boobu nee na su fekkee da ngaa ak sobe te fàtte ko waaw su fekkee si dafa am sobe nga gis ko xam ko ne xaaral ma dem dindi ko ba mu ko julleeg moom julli ba sëlmal sa xel soog cee dem julli ga baax na su doon da ngaa julli digg bi nag sa xel dem ca julli ga yàqu na waaw ngay dem dindi sobe sax soog a mën a waaye su fekkee da ngaa julli ba noppi nag sa xel soog a dem ci ne ah man kat fàtte woon naa ne sobe si waxoon naa dinaa ko dindi kon ba julli ga baax na dara waru la ci kii nee na kuy julli ba mu yàgg sa dënn feeñ loolu waaw kuy julli ba mu yàgg sa dënn feeñ benn ngay góor walla ngay jigéen su fekkee góor nga dara waru ca ndax góor su julle woon ak kilot sax julli ga baax na donte ne ànduta ki war moo ànduta ki teggin su dee jigéen nag su jullee ba mu yàgg dënnam feeñ wala mel ni boppam feeñ mooy atraaf yu mel ni fiñ ci yeeg loxo yi yéel yeeg yu demee bu feeñee moom bëgg nañ rek mu baamu ci waxtu wa wa aadat li kashfi sadriha wa atrafiha bi waxtu bëgg nañ rek mu baamu ci waxtu wa loolu la Cheikh Khalil wax su fekkee ne leneen dafa feeñ lu bokkut loolu moom day baamu ba faw kon loolu ci tënk loolu la kii nee na ñaari jaaro ndax góor mën na koo takk loolu moom laaj nañ ko ñaari yoon sax ñaari ñaari yoon ñu ñoom ci laaj bi waaw ñaari jaaro jaaro bi lislaam may góor mu takk mooy jaarob xaalis te su baree ba bari ba mu weesu ñaari dërëmi yoon te benn lay doon soo jëloon ñaari dërëm yoon daal dina ah, man kat kon ñaari dërëm lañ may léegi bàyyi def ko ñaari jaaro wala ñetti jaaro ko dañ naan la déedéet kay ñaari dërëm mooy li ci gën a bari waaye nag benn lay doon benn lay doon kon loolu la bu dee jigéen nag lu ko neex mën naa takk moo xam xaalis na moo xam or la góor suñu takk or sañ na koo moom waaye suñu ko takk jigéen lu mu bëgg a takk ci or moo xam caq la koy def moo xam bu ko doon def sax ay dàll sax di ko sol sax may nañ ko ko waaye nag mayuñ ko lu teqali koog moom lu mel ni mu di ci liggéey ab lal wala mu di ci liggéey ay ndab wala yu demee noonu mayuñ ko ko waaye nag lépp loo xam ne takkaay la ci jigéen lu mu bari bari su fekkee dafay jubloo sol rek moo ko moom dagan na ci moom te asaka du ci war beneen bi nee na bi mooy cax wi nga xam ne daan na fi dana fi faral di jaar mooy ku ñuy wutal xam naa tontoon naa ko fe waaye dama ne masamba na ko xool waaye xam naa ne message yi bari ba du ko mën a gis waaye laaj bi daf fii ñëwaat nit daal su fekkee wutal nañ la imaam bi mu lay wutal dalaa raw ci tënk yow boo ñëwee àtte imaam ngay yor da ngay mel ni imaam ay julli rek boo jullee ba julli imaam jeex ñi ñi nga xam ne dañoo fekkee njëlbéenu julli ga dañuy toog xaar la nga jóg yow fay lañ la rawee su ko defee soog a sëlmal ñoom ñu soog a sëlmal maaleykum salaam kii nee na ki am doom nekk hôpital ndax des na ko mën a ngénte ah waaw des na ko mën a ngénte kay tontu naa léegi ci gannaaw lu yaatu ci ngénte ngenti weesuut nodd ci nopp ndeyjoor bi xam nodd càmmoñ bi jox ko tur wi dem rayal ko gatt gatt bi moom su fekkee da ngaa nekk biti réew ñu rayal ko Sénégal baax na boo nekkee hôpital ñu rayal ko sa kër baax na su ko defee ñu wat xale bi rek loolu moom tubarkal la ki nee na ndax jàng alquran ci téléphone te yoro njàpp ndax dagan na waaw dagan na ndax eh, téere bi nekk ci téléphone yorut àtteeb téere bi ñuy téye ndax li nekk si téléphone daanaka du loo xam ne mën nga koo téye ba boo ko bëggoon a jukki wala nga kii ko mën koo def déedéet moo tax kaamil bi nekk ci téléphone mën koo téye jàng ko te doo yor njàpp ndax moom yurut ak tepp téere bi nga xam ne kitaab la mustaqil la ndax moom duggul ci laa yamassuhu illal mutahharun kii na nag ki amee bor te mënu koo fay nan lay def ah xanaa a gu koo fay kay lañ wax ki amé bor te mën gu fay na def moy su daa waxoon kim amel bor joxe dat ni ko alxuraan diglee bu dat ba di jege si mu gis ne jékkagul na dem wax ak mom né ko ah, mala waxon li kat way jékkagum suma jékké ci dat bi dana ñëw ni ma gisé ni japp man danaa si jekk nga mayat ma ab bir su la nexé ngeen bañu a wut dat nga ne ko daal su ndé ci man ba ñëw ngeen waxtaan te ba juboo su yàlla dogalee jàppandiwul nag ba nga faatu wala moom mu faatu yow soo faatoo sa alal ji bor yi bokk na si fi njëkk a génne ndax nit ñi dañuy wax miraas miraas waaye alal ki faatu yi ci war a jiitu dafa bari lool Richard Ibn Abi andi na ci lu yaatu waaw yooyu la ñu war a jiital ba noppi bu desee nag gars yi soog a séddoo ndax yii yu bari dafa dafa gàll woon ci sa ndodd comme sa alal la nag te faatu nga da ngaa war a sa bopp ci sa alali bopp ba noppi nag bu desee nga soog a joxe say bokk soog jël waaye daanaka miraas rek la ñuy waxantoo ñoom dañoo a alal ba su fekkee moom daa faatu nag te fayagoo ko nga dem fay way donnam ya waaw raddul mazalimi ilal arba bi su yàlla dogalee amoo te waa ji faatu it wax ak ñoom ne leen ah seen waa ji kat loon na ko nangam amaguma nag waaye su ma amee ñëw wax daal ba mu leer bañ a mës rek ndax nit ñu bare bare bu ñu yorelee nit bor waxuma sax mu faatu waaye bu fi nekkee dañuy fexe di naxlante ak moom ba bañ koo fay ki ñu yoreel bor biit it li ko lislaam wax mooy wa in kaana du usratin fa nasratun ila maysara bu la nit yoreelee bor da nga yëg ne daa ñàkk alko nee na wa an tasaddaqu xayru lakum nga ne ko ah, diw yow kat yoreel nga ma bor waaye may naa la ko alquran ne loolu réy réy sarax bu réy ngi noonu maanaam dindi nga ko njàqare ba noppi am tiyaabay euh, am tiyaabay sarax itam ki nga xamne da doon julli fàtte li xam ndax julli ga dana bax wala dit waaw julli ga dana bax li xam day sunna su génn julli mom rek moy sunna si nga xamne moy sunna su génn julli su ko nit fàttee julli ga baxna na ñu ne sax bu ko tayon bàyyi ko sax julli ga téewut day bax waaye yeen borom xam dañ ne bu ko tayee bàyyi ko euh, julli ga day yaq ndax kuy tay di bàyyi sunna léegi tay nga tay bàyyi farata te bo tay bàyyi farata julli ga day yàqu laaj bi nee na ndax feral comme nii ñuy ferale moom sunna la walla waaw mbokk mi feral ci nii ñu koy defee mooy bind dara ci alxuraan boole ko ak lekk jox ko xale bi loolu barkelu la ci alxuraan rek waaye feral daal mooy tere xale bi weenu yaayam mooy génne ko ci lam daan dundee indi ko ci li nit ñi dundee lii rek kay feral su xeyon rek nga bañ ko jox yoon euh muy lek ci li nit ñi lek it loolu ak feral la waye jang gi jang wala bind gi ñi bind alxuraan di ko ak xewal mu di ko lekk loolu barkeelu la rek ci alxuraan ben bis top neena waaw naka la ñu tànnee soxna waaw tan soxna de sar salaam dafa waxone yi des na ci tan soxna tun ko xol mara li arba bis njëkk moy li jamaliha wali maaliha wali xasabiha wali diiniha fadar bi zaati diini taribat ya daak dees na denc soxna ngir ñeent léegi-léegi nit gis as ndaw mu rafet rek mu ne dama koy takk léeg-léeg nit gis as ndaw mu am xaalis dama koy takk léeg nit gis as ndaw askanam foor lool mu ne dama koy takk léeg-léeg nit gis jigéen Eh, mu am diine man dama koy takk waaye aleyhi salaatu nee na ku ko doon deglu mu la digal dinaan la tanal borom diine ci jigen ñep ak luñ mëna am Jigen ji am diine mo ca gën kon neena na bi daal diine très ya dak yow mi nga xamne ya yaay kilifa ak ndaw ci tawara may nak ali mu la wax bëriwut def na dal yow kilifa ak ndaw si gep goor gu la dikkel nga gis ne ki am diine jikkoom rafet na su la ñaanee sa doom may ko xoolul leneen yeneen yi ñu xool sant waak waaso waak nangam ak nit ci sangam lay rek yu yëpp suñuy fi bopp la waaye lii la alayhi salaam wax moo tax ndax diine ku ko am doo tooñ ku sa jikko rafet suñ la tooñee nga bale ñaar yi nag moo jafe lool ci sëy yi waaye bu amee ci sëy jàmm rek ka fay am doo tooñ te buñ la tooñee nga nga bale ah loolu mu sëy bu mu am dana neex bis topp nee na banque ndax leb bank da daga wala déet waaw leb bank mbokk mi ñu bari dañoo wax ne su fekkee da ngaa amul loo liggéeyee wala da ngaa amul foo dëkk wala da ngaa amul waruwaay yi nga xam ne daal nit la koy soxla muy farata ci nit te mënoo ko ñàkk soo ko ñàkkee sañ ngaa lebi donte ci système yii la nga xam ne baaxut su ko defee da ngaa lor yow atteb lekk mi dañ lay jàppee su ko defee boo boo demee lebi faj soxla soosee soo ci génnee bàkkaar ba cay nekk mooy système bu baaxul bi riba bi ah, day des ca waa banque ba ñoom la bàkkaar du topp waaye yow mi nga xam ne da ngaa loru yow dara du la ci du la ci war bis topp nee ndax nit ñi nga xam ne dañoo fonk lool jëfi ceddo ndax ñooñu des na mën a jàppee ay jullit waaw joxe na ci ndiral sax lu mel ni comme ñi nga xam ne xey rek faaw ñu soti ndox ci seen buntu kër wala seen buntu néeg yu demee noonu waaw mbokk mi ñun nak suñu pénc mi ak da fay am doole wax nañ sax mo fi ëpp doole diine ji waye bo demee ci Ibrahim euh, mohammed Bichar ci tire Ibrahim as-sahami ba euh, dafa wax ne wa zubtidaan wa tizalin fusiqa min duni miryatin siwa nafiqa ku fonki bidaa ak mu'tazila yi ñi nga xam ne seen pas-pas daa des ak ki nga xam ne day def bàkkaar te du ko nëbbu kenn du leen génne ci diine yi waaye fasiqa mooy dañ leen tuddee rek faasix faasix mooy kiy def bàkkaar te doo ko nëbbu waaye kenn sañu leen a takkafiir leen génne ci diine yi da gis koo xam ne ci suñ suñ pénc mi euh, ba nii rek maa ngi euh, gis ko naan may tibb ci suuf si fekk boo dafa daanu ci barab ne day tibb ci suuf si bu demee sangoo ko ndax daanu ci marché baaxul bo daanu ci marché da ngay tuddu suuf si bo demé sango xolal xoolal rek loolu xam nga jëf ci ceddo deug la wala ñu né xalé soy tukki di ko fi bàyyi da ngay ëff bëdiya ya tax du leen yeloo xam jëf jëf ci ceddo la wala nga gis ko xam da tak sagar rek sagar rek wala xey di wis ndox sa buntu néeg wala sa buntu kër wala tim ndox jël tiim ñam jël ndox wis ca kaw yooyu yëpp eh, gisuñu delluwaayam ci lulu ci ceddo rek waye l'islam santane moy ñaan yo xamne ku xey def ko yalla mën la laa musal ba ngon jot bu ngon jotee nga defaat ko yalla musal la ba nga xey lii dal moy li nga xamne mom lañ mom lañ jàngate mu am marjam neena laal jigen ndax day yak njàpp wa mbok mi laal jigen dana yak njàpp waye laal jigen nak da bari ay façon dano wax ne su góor laalee jigéen te jublu sa bànneex wala mu euh, am ko ca walla jubluwu ko ca waaye am na ko ca maanaam fii rek la laal jigéen di bañ a yàqee njàpp mooy jubluwoo ca bànneex amoo ko ca soo laalee jigéen jublu ca bànneex am ko ca yàqu na soo ca jublee bànneex te amoo ko ca sax yàqu na soo ca jubluwut bànneex te bànneex fekk la ca mooy nga am ko ca da yàq ñett yooyu yëpp day yàqu benn la dul yàq mooy jubloo ca bànneex amoo ko ca waaye fuqaaw yi ne ba demee ci xal nee na su fekkee da ngaa laal koo xam ne euh, matagula bànneexoo lu mel ne xale boo xam ne juróom-ñeenti at jëm suuf nga laal ko yëg ci bànneex dañuy jàpp ne yow yaa nitee di maanaam yow yaa nitewul waaye loolu du yàq njàpp wala nga laal koo xam ne sa koj armantel la boo ci yëgee bànneex yow yaa génn ci kuréelu nit ñi ndax loolu nitewul laal sa yaay wala laal sa rak wala yi demee noonu xam loolu nit daaw ci yëgee bànneex donc yow boo boo leen laalee yéeg ca bànneex dañ naan yow dañ laa génn ci nit ñi waaye yow loolu mënta yàq sa njàpp kon ku mët la bànneexu juróom-ñeenti at jëm suuf boo ko laal yéeg ca bànneex wax nañ sa njàpp yàqut yow dañoo jàpp ne sam xel daa matut rek wala koo xam dalaa araam sa mag wala wala sa yaay wala demee noonu boo leen laalee yéeg ca bànneex duñ sa njàpp day yàqu waaye dañuy jàpp ne yow sam xel rek moo matul nee na yan nelaw mooy yàq njàpp mbokk mi nelaw yi nelaw ji yàq njàpp daal mooy nelaw yu diis am na nelaw yoo xam ne yow sopp borom mu jàpp mooy nelaw yoo xam ne gudd na te diisul nelaw yu diis nag soo ko bëggee xam mooy rek boo téye woon dara mu wadd mel ni nga téye kurus ba kurus ga wadd jàppal ne sa nelaw diis na wala nga téye big big ba wadd jàppal ne sa nelaw diis na wala nga téye sa téléphone téléphone ba wadd jàppal ne sa nelaw diis na kon daal yi wala lu mel ne nga tuddoon yàlla dogal nga yuut wala yu demee noonu yooyu yëpp soo ko defee yëgal ne sa sa sa sa nelaw diis na na loola waddee ngalaw wala yu demee noonu mënoon naa génn ci yow te doo ko yëg ndax yow booba ñàkk nga contrôle contrôle sa sa bopp. Euh, laaj bi bi ñu mujjee nee na moom dafay bàyyeekoo yoof jëm caaro yi waaye buy génn day fekk booba julli suba du jotagum ndax dina mën a julli suba soog a dem jindi bagage fo ci caaro euh waaw mbokk mi julli mom kenn du ko julli te waxtam duggagul julli kenn du ko julli te waxtam jotagul so de genn te suba jotagul da ngay baye so yegge fa nga jëm heure bo yegg bo demé nga fay su fekke da nga baye ko yof dim caare mom foofu mom bala 7h wala bala 8h man nga yegg so demé nga fay fi rek la maye nga julli julli te waxtoom jotagul te booba sax dañu japp ne ñoo bokk wax lu mel ni tusu barak takusan xam nga tusu barak takusan fu xëy dañu japp ne ñoo bokk wax timis ak gee dañu japp ne ñoo bokk wax motax so doon tukki bar jot na yang ci si njëlbeenu waxtu bar nga japp ne bo xasse départ fa ngay jëm mom gannaaw tàkkusaan nga fa yegg moy barang fa yegg timis dana jot dañ na la kon jullil bar nga door ci takusan ci wetam ñu tuddee ko euh, euh, moom la ñu tuddee jam jam jam jamoo mooy mooy nga xam ne salaatul jamaa mooy julli boole waaw ndax boole dafa am jamoo taqdim am jamoo taaxir am jamoo sugriya léegi nag moom la ñuy wax jamoo taqdim mooy nga julli tusubaar daal rek teg ca tàkkusaan te boobu sax waxtu tàkkusaan fekkagul mu jot su doon ne timis ak geeyit pare, boo déparee fekkee timis daa jot ngay voyage si départ mu wóor la ne balaa ngaa yegg fa nga jëm waxtu suba dana jot boo julee timis rek man nga caa teg gée ñu tuddee ko jëmoo jëmoo taqdim kon looloo fi ruusandi woon ci laaj lu ci leer sunu borom la lu ci lëndëm gàtt xam-xam in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum